asalaamaaleykum mbokk yi man la Mister TQG. su nawet bu jub see yëpp dem si terrasse bi seen tey nag dinaa tontu si benn laaj ana lan moo mën a aar seen tabax si ndoxu taw bi déedéet du ma leen tontu koy won topp leen. damay tàmbalee jël sama bac en bois def si trou yu bari comme ni ngeen ko gisee su ma pare dama si sotti ndox ngir ngeen gis nu muy senne li si topp mooy jël sama Colorflex di peinture d'étanchéité bu Colorado. diw ko si biir baag bi ba mu fat su ko defee ndox mi du am fu muy jaar bay sànni ma xaar tuuti bàyyi peinture coloflex bi jàpp bu baax maanaam ba mu wow si diiru 6 ba 8 heures de léegi dañuy dellu sotti wat ci ndox bu bari xool lum ñu jox ñoo ko gisandoo bi la yoon sennul bant bi sax tooyul mbokk yi lii du luxus du ay naxe nii la Coloflex bu Colorado di def ci seeni terrasse. kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ak seen peinture Coloflex dara dootul senn moo baax si seen terrasse. si diggante ñaari bâtiment teg si dafay aar seen tabax. Coloflex peinture d'étanchéité et de protection pour vos façades terrasses et tuiles disponible chez TQG Touba Quincaillerie Générale TQG cité Keur Damel extension rond-point 26 Parcelles Assainies représentant exclusif de la marque Colorado disponible partout au Sénégal téléphone 33 879 28 28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 julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy tënk ci ñaari baat yuñ miin a waxtaane di ko wax waxee ba àgg ci sax ñaar ñu dem bay tàggoo kii war a dem ne kee war a dem ne dañ koy joxlante ñaare te muy baat yu diis muy baat di ñuy wax mucc ak xéewal luñ min la euh, ngir jëm ci bokk yi bu ñu demee ba àdduna ci boppam xew-xew yi ci am bis bi sax dara xew nit ñëpp wax jëm ci bu taxee nit fàtte li fi indi woon ba muy foye yi nga xam ne kenn waru ko foye aaja nañu fàttaliku lu taxoon yàlla indi nu fi ndax xew-xew yi xew ba nit ñëpp dégmal ko ba kenn talatul dara buñ ci joxee misaal ci aw yoon lu mel ni ab tëli ci lañuy xam ne yenn xew-xew yi amul njariñ bokk yi ëpp tali jamono bu ci nit ki jaaree li ëpp ci nit ñi bokk ñu ànd ak seeni xel day mel ne yitte moo lañ ko tax a teg moo leen tax a jël yoon wa waaye su fekkee ka tegu ci yoon wi dane moom day topp tali bi ba mu jeex tàkk amul soxla ci li muy romb bu demee ba àgg ci dëkk dana xam ne tali bi jëmut fenn xanaa kenn ku ci nekk moo cay jaar ba fa muy ak fa muy fa muy wàcc mu wàcc bàyyi keneen mu jàll da jaar ci ab tali jëm dëkk bu sori saa boo doxee mu wan la ñaataa la dese ba yàgg mu ne dugg nga ci dëkk bi nga àgg ci biir dëkk ba gis fa aw sel ay sel mu bindal la ne la yoon wi moo jëm barab sàngam yoon wi moo jëm barab sàngam yoon wi moo jëm barab sàngam soo amatu tànn xam la la taxawoon jaar ci yoon wi bëgg a topp tëli bi rek tëli bi moom jëmul fenn day wër rek loolu mooy soxlay adduna yi ak yi ciy xew tey wëlbati nit ñi lekk-lekk léeg-léeg war nañu fàttaliku lu ñu fi indi woon bokk yi bar yooyu mucc xéewal lu jafe la mucc mooy alfawzu xéewal mooy annaim mucc nag ci lan am na ñoo xam ne yoon woowu ñu jaar ba xoolatuñ dara lu leen di àggale fañ jëm képp ak nu ñu fa mën a àgg képp lañuy xool lañ bëgg a mucc mooy ba mucc ci bañ a jot ci lañ soxla kese am na ñoo xam ne bu ñuy wut xam-xam dañuy fas yéene mucc ci bañ a xam jëm ci xam mucc ci bañ a xam am na ñoo xam ne bu ñuy wut alal lañuy ñuy fas yéene mucc mooy ñàkk ak ñàkk la ñuy fas yéene mucc am ñoñ rédig yaram lañ am fu ñu leen ne ku fa dem faju dana leen ko jaral ndax lañuy bëgg a mucc mooy ak wérit lañ bëgg a mucc waaye mucc dëgg dëgg dëgg nag moom ak xéewal gi ñu koy booleel lu mat a déglu ci ab jullit la ne lu yomb kañ la nit di am mucc ak xéewal mooy bis bu ñu séddalee téere yi ba kenn ku ci nekk jot ab téere nit ki ci boppam kañ lay mucc mooy bu gisee ne diw ñoom seeni téere kat danañ ko joxe ci seen ginnaaw moom ñu tàllal mu tàllal ndeyjooram ñu tegal ko su boobaa mën naa am yaakaar ne mucc mi ngi tàmbali yàlla nañ ci yàlla boole ñu ne ko suñu borom ne ko iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba mu mu liir ko liir mooy xool ko ci suuf laa mu ko yëkkati ca kaw bu ko xoolee ci suuf mu mel na mu war a mel na mu ko gënale fa yaqulu ha umu qra'u kitaabiya kaay leen ñu àndandoo jàng lii ñu ma bindal ngeen dégg ko tàmbalee wax ca kaw su boobaa dox na jéego yu am solo jëm ci mucc nangoon a téeréem ndoxam day jooram jàng liir ko ci suuf moo yër ko yëkkati ko ca kaw ñépp dégg aaya boobu fa yaqulu ha uma qra'u kitaabiya inni danantu anni mulaaqin xisaabiya fa huwa fi aysatin raadiya fi jannatin aaliya qutufuha daaniya ñaareel ba euh, bala mu àgg foofu bu ñu ko dencee ba noppi li may wax ni ci kanam la nekk li tax ma jëkkee ko bu ma ko jëkkee des na diglu ku ne bëgg ku ne war na caa bëgg bokk waaye fii fii tàmbalee mooy mu ca xéwal dëgg fi ko nit ki tàmbalee ñame mooy bu ñu ko dencee ba ba ne wërañ dem mu xool li wër bàmmeel bi mu naat lool mu xool ba bëtam yam lépp neex xool mu gis ay laltu ak i tàppi yoo xam ne mosu koo gis mosu koo dégg xet ga cay génn te su bokk yi suñuy tàppi yi ñu amagum léeg-léeg pënd ba cay nekk di soj nit ki wala mu di ko jox jeneen tàngoor ak a wuuteeg yooyu étape bi waaye nag mu tàmbalee gis ñuy solu colom waa aljanna ba yàgg ñu jox ko ci mu sol su boobaa am xelam dana dal ci wóor na ko ni fii mu jëm yàlla aw doxinam lépp kanam la jëm yàlla nañu ci yàlla boole su boobaa da dana ko wóor ne mën naa ràññee ñi ko doon wétli ci àdduna ni ko loo dugg ñu dugg ca kese kese te nekkul ci seen xol ya ak ñi nga xam ne dañ ko daan wax loo dugg ñu dugg ci tam nekk seen xol day daal tàmbalee wétliku ku ne di ko ndokkeel suñu borom moo ko jëkk a ndokkeel mooy suñu wax ci alxuraan naan kulu washrabu hanian bima aslaftum fi ayaami alxaaliya mooy wa ammaa man uutiya kitaabahu fa amma man uti kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitaabiya ba àgg ca kulu washrabu hanian bima aslaftum fi l alxaaliya ka ca topp topp ca wa man uti kitaabahu bi shimaali yal kon nit ki mi ngi njëkk a dalam xel ci biir bu nit ñi dencee ba ne waaye bis bi ñu ko joxee téere mu dàng ko ci suuf jàng ko ci kaw ñëpp dégg mu jéggi jéego bii nga xam ne mooy jéegoom bu mujj bu ko jéggee jéggi na siraat mu xool tiit ma ak natt bu metti ba ca ginnaawam ak natt ba peese ba ak siraat ci ginnaawam muy gis ñoo xam ne ñu ngay yat yati di ko jéem a jog gi di tarxiis di daam su boobaa nag dana xam ne fa dalika al fawzu maanaam mucc na mucc ko gën a mag dangay gis koo xam ne dañ koy tàccu di ko ndokkeel ci mucc gi nga mucc ci ñàkk la nga doon xëccoo am nga ko waaye nis tuuti bu dee faw fawzi itam fawsun saxirun saxir xam na ne am na fu muy yem diggante boobu nag jëlut ñaaw waaye bokk yi loolu itam fa dalika huwa naimu alkabir al azim eh, kulu washrabu hanian bima aslaftum fi l ayaami alxaaliya li muy tekki mooy yàlla nee mi ngi leen ci fii ngeen dugg te bokk yi sirat ku ko jéggi aljanna mi ngi leen di ndokkeel lii ngeen di lekk fas ko yéene tàmbalee lekk di ko naan te du jeex mukk maa ngi leen ciy ndokkeel ndax li ko waral mooy ba ngeen di dund ca ad ca àdduna xew-xew àdduna mosu leen a mën a wàññi mosu leen tax a gestu mooy bis yi ngeen amee doole bis yi ngeen amee do bis ngeen amee doole am alal am wér da ko jaayoon yàlla mu jënd ko jëggaa ngi ni jar na bokk yi nag alfawzul azim wa naimul mubin wala al naimul kabir ak nu mën a tudd ci mat nit mën naa dox jëm ca kii dox jëm ca nag mooy koo xam ne benn xew-xew adduna mënu koo yóbbaale lu adduna ji yëngutu yëngutu lu xew-xew yi bari bari saa waree walbatiku dem jaamu ji yàlla dana ko bàyyi dem jaamu ji yàlla bokk yi ñaata bés lañuy woote yoo xam ne waxtaan nañ ko lu bari dañ naan addunaa woote rek wootee xew ma woote rek ñu wuy si ko waaye nag duñ fa waajal sax foo xam ne fii bu waxtu julli jotee ñu mën faa julli moo tax kiy sàkku dëgg-dëgg naa yi muy xéewal gu du dakkati ak mucc gu sax mooy koo xam ne lu mën a nekk su waxtu jaamu yàlla jotee mënu ko fi ñëpp yi nga xam ne bukkut ak ponk jaamu yàlla yu mag yooyu dañ ko jëndale waaye yi nga xam ne dañ leen sopp nañ ko ko def képp yam ca kenn du ko ca man waaye fépp foo xam ne dañ ne lu baax a nga fay dañ ko fa gis dañ ko fa miin te du soxla ku koy tudd lu mën a def lam cay soxla dëgg-dëgg mooy yàlla fay ko rek yàlla nangu ko fay ko ca fawzul mubiin ak naimun azim walla kabir kon li ñuy wax ni yomb naa xam bokk yi ku tabax ku taxaw ci armel waxuma nag armel dëkk yu mag yi nga xam ne dañuy tabax ci biir armel yi ay njëndi ku ne di wane ne maa la gën a rafetle waaye armeel yoo dox ba yam ca képp ci dëkkub àll dëkk bu dëkkub kaw bu ndaw néew na nga mën caa xàmme boroom bàmmeel bi moo dëkkoon ci kër gu rafet gële wala moo fi yoroon ndobb ak tànk sàngam wala boog mooy ku siiwoon ka boo ko xamutoon doo ko xàmmee ci bàmmeel yi waaye moo fi doon def nit ñi lii ndax ndomm ak tànkam nga wala yaxam bu rëy ba doo ko xàmmee ci bàmmeel yi kon boog gannaaw mënu ca xàmmee ka dëkkoon ci kër gu rafet ga ak ci dëkkoon ci kër gu ràpp ga mënoo ca xàmmee borom tur wu siiw wa ca lam doon liggéey ak ki nga xam ne lam mënoon di ko liggéey ko su ñëw kenn xamu ko woon ba ni mu si bàyyi ko doo ko xàmmee ci bàmmeel waaye li mat a fexe ba wuute kook say moroom mooy lay xew ca bàmmeel ba ak gannaaw bàmmeel xam ne kër gu rafet genn ñaar yatt ba mu doonu lim ndombay tànk yu bari ñu ràng kenn alal yu bari njaboot gu sakkan duñ ci boole kenn duñ ko boole kenn du ko denc moom képp noonu muy wéti ci néegam ba tëj appartement tëj buntu néegam sàng noonu muy wéti lay wéti ci bàmmeel jëfam rek moo ko fekkee li mu fi nekk woon lépp man-manam ba lépp ci lu baax la jëm dana am alfaws na naim mucc ak xéwal bu fekkee nag kattanam googeeg doolam googeeg da ko jëmee woon ci leneen loolee dana am dara alxusraanul alim lay am pertaange ju metti perte képp dafa doy met metti waaye alim gu metti goo xam moom yàlla na ci yàlla musal léeg-léeg nag nit ne léeg nit ne euh, wax yi wax ji tàng na wala metti na euh, dàqonte nit di wut mucc ak xéwal buñ ne kenn mënu ko am rek tayal tam waaye fa amee njariñ mooy jamono bi waaj amee jot fii fa mu amee njariñ mooy nit ki am na jot mën na dara sañ na dara muy def te yàlla tax xam ne séqu ko ak keneen ku dul doomu aadama yi kenn ku ci nekk mu jox la cër ba mu su ko kooku séddee ak ku ko su ko kooku mu ci xéwal gi ñuy kaf ci mbedd mi di ko waxaate moom fañ ko soxlaa mën na koo am te dutu ko ñàkk yàlla na ko yàlla defal bokk yi xew-xew yi day fëlewli nit akuk jaamu yàlla benn ñëw leen ñëpp ñëw waajo luñ fa ay waajukaay wutuñ ndox mu ñuy jàppe teg fa wutuñu ay sijaada teg fa wutuñu tànn ci mbooloo mi koo xam ne bu ko fi waxtu fekkee mën a jiite su ko fi du fekk ñu wutal ko ay nawaam waxuma ay nawaam de da nga ñëw diw mooy naayibam naayim naayib mooy koo xam ne bu kii nee diis mu tege ma ñu tànn ci mbooloo mi ñoo xam ne ñëpp ñoo maase bañ fay nekk ba waxtu julli bi jot waaye wooteel lislaam wooteel diine topp xew-xew yi naan suñu àggee bu ma àggee def ko am groupe lépp walla waxtu wi des na waxtu wi bu desee it ku desal buy jeex ku fi fiy fekk ku ko xam moo tax war nañuy fàttaliku li ñu fi yàlla indee daf ñu fi indi ngir ñu tabax suñu këri ëllëg ya daf ñu fi indi ngir ñu fexe ba suuf si bañ a rab rappal suuf si mooy bañ fay daamu yàlla huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha wastaamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi mooy kam ko waxal ab yonent la wa ila thamuda axahum saaliha qaala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha moo leen indi ci suuf si ngir ngeen dundaleel ko suuf si suuf si jaamu yàlla moo tax ñu sàkk waaye nit ñi nag la fi teg ñu nekkal ko fi nit nag fu ko way nekkal dafa war a nekk waxuma lañuy bëgg ndax kam fiy nekkal mën na bëgg loo xam ne bokkut ak na war a demee waaye da ngay seet lan nga fa war a nekk nga nekk ko inni jaalun fi l xalifa xalifa mooy nit rek kon boobu soxlay adduna ya nga xew-xew adduna ya noonu da nga dem ci jotaay boo xam ne bii bu ñu fa séddalee won ab kaamil du taxaw ay xuffaas ne nga fa bu ñu fa doon sarxaa jawaahirul iklil bii ñu xam di jàng la fiq dana bari ñu dégg lool dana bari ñoo xam ne fàttaliku nañ ca dana ca bari ñoo xam ne danañ ca jànge dama joxe message jaar yooyu rek waaye mu alxuraan ak xam-xam xam-xam yi rek waaye koo ci gis ma nga yore ab téléphone mën naa taseeg loo xam ne man taseeguma ak moom mu ne ma ndax gis nga ko mu ne ko gisaguma ko mu wan ma mayet la ma la ko gisaguma ma wan ko ñu koy wanante ba jotaay ba jeex ña xewal xew-xew ya bañ leen topp ba du suñ def lañu war a def ñoom loola mooy seen liggéey ñu ngi yëg jëm xamu fu ñu jëm nag waaye seen yëg googee wuruf tax ñun ñu bañ ñu toog leen seetaan te bañ a yëg te ñun fu ñu yaakaar ne fa lañ jëm mooy fa ab jullit fa mu yaakaar ne fa la gën fa la fa jëm te mën na ko wóor ndax joxuñu suñu borom ma joxuñu suñu borom ku ko wàccut da nga geg da nga àgg fa sos xew-xew yi lekk-lekk ñu jekk na teel ñu naan du mën ak du mën a am nit ñi def ko seen yitte ba tëlatuñoo jaamu yàlla nañ xam ne ñooña looloo mooy liggéey lañ yaakaar ca lañ ko yaakaar fu mu jëm ak ñoom waaye ñun liñ yaakaar nañ ko wut te moo gën a wóor te fi ñu koy wute yomb na fu ñu nekk nañuy xool bis ba ñuy tëral di ñu laaj te ñun dong ñooy tontu bis ba ñuy jàngaloo suñuy téere te ñun rek ñoo koy jàng te foofa mooy gën a xumb fii ma taxaw mooy gën a leer te lu fa wax dis na ko xam yawma tubla sarair lu way gàtt gàtt ëllëgoo jàng na ko ñaare ci alquran wa samaai wa taariq ñu bari fa wees nañ ko boo ko ne tere ko mën yawma tubla sarair fa ma lahu min quwatin wala nasir fekk yàllaa nga wax ak bokk yi su du laaj foo faroon fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma wala yatasaaluun duñ duñ laaj noo sant duñ laaj koo àndaloon léeg-léeg nga dégg ko ne man faruma fenn da koo birélu waaye ku faru fenn amul benn mu firi mu far ci xisbullah wala mu wala mu far ci xisbu sheytaan ala inna xisba allahi humul muflihun ala inna xisba sheytaani humul xaasiruun yàlla na yàlla defal dégg ak topp te wutal ñu wéttal yu mat wéttal bokk ñaari béjjën ci nag wala ci xar wéttalante wuñ mën naa am ñu bokk fu ñu jógee waaye kenn ku nekk fu mu jëm léeg benn ba jub xocc léeg benn ba dëng jëm suuf kenn jëriñul moromam dara dañoo ànd nii rek bokk na ci nag bi te bala moo neex xam nag wa dee la leen boole nekkatu fa tàggoo bu ñaaw la ñuy tàggu bii béjjén mën naa nekk ci penku bii béjjén dem ci sow ndax dañ koy far kii far ko jëme fee kee far ko jëme ne ñu tàggoo waaye yàlla ñu yàlla defal ànd bi nga xam ne mooy ànd bi ay gët ak bakkan ak làmmeñ àndandoo ak cër yi ne ci yaram bi yépp nga xam ne ñooy bokk di dund waaye bu ñu demee ba day dikk itam ñoom la ñuy bokk sulandoo kon loola mooy dëgg suñu leen di dekkal ñoom la ñuy bokk dekkal su boobaa nag ñooy layoog wàcc ba xam xisbullahi la toppoon wala xisbu seytaan boo nee xisbullah nag ci yenn réew yi ñu tiit mooy li alxuraan di wax ne dalika bi anna allaha mawla allazina amanu mooy ñu ànd yàlla rek ñi nga xam ne fa yàlla joxañ lu lu metti metti fa la ñuy féete soo ko waxee ci réew rek léeg-léeg ñu ne ñu ko ne xool leen ko mbar daa bokk ci xisbullah kuñ ko wax nga ne bokk ma ci wax nga musiba euh, su ko defee cër cëram yooyu ma wax ni ñoo àndoon di ñu dund ba ba ñu dee su boobaa seeree waaj la ñuy doon bu ne lu tax ngeen di ma seeree rek mooy alxuraan di wax ne yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaamaluun ñoom ñëpp kenn ku ne day taxaw euh, bu waa ne wa qalu li juludihim li ma shahidtum alayna ngeen di ma seereel qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in yàlla mi ñu bind bind yàlla mi ñu bindoon bind la kat moo ñu wax loo faw ñu wax dañ cee am ndigal bis boobu nag ku ko tegu ci kanamam di ko di ko bàyyi xel di ko baal xel lu ko soob mën na koo def waaye mi ngi ñëw te bis bu jant bu fenk nit dox gën koo jege yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musal ñu seytaane ki يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين asalaamaaleykum mbokk yi man la Mister TQG su nawet bu jub see xel yëpp dem si terrasse bu set tey nag dina tontu si benn laaj ana lan moo mën a aar seen tabax si ndoxu taw bi déedéet du tontu dem leen koy won topp leen damay tàmbalee jël sama bac en bois def si trou yu bari comme ni ngeen ko gisee su ma paree dama ci sotti ndox ngir ngeen gis nu muy senne li ci topp mooy jël sama Colorflex di peinture d'étanchéité bu Colorado diw ko si baag bi ba mu fat su ko defee ndox mi du am fu muy jaar bay senn ma xaar tuuti bàyyi peinture Colorflex bi jàpp bu baax maanaam ba mu wow si diiru 6 ba 8 heures léegi dañuy dellu sotti wat ci ndox bu bari xool lum ñu jox ñoo ko gisandoo bi la yoon sennul bant bi sax tooyul mbokk yi lii du luxus du ay naxe nii la Coloflex bu Colorado di def ci seeni teraas kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ak seen peinture Coloflex dara dootul senn moo baax ci seen terrasse si diggante ñaari bâtiment teg si dafay aar seen tabax. Coloflex peinture d'étanchéité et de protection pour vos façades terrasses et tuiles disponible chez TQG Touba Quincaillerie Générale TQG cité Keur Damel extension rond-point 26 Parcelles Assainies représentant exclusif de la marque Colorado disponible partout au Sénégal téléphone 33 879 28 28